na ci carrière Wally da nga def lu ne ci carrière Wally yow bu Wally bu toll nii fii yàlla ak a tax te Sénégal gépp mën nañ koo seede léegi lu ci bëri ñeneen a koy def pour nga xam ko lu ci bëri ñeneen a koy def. toogal déglu rek. dama doon Wally bi est-ce dégg nga Badiane. dama doon ma la naa la dañ leen a bedd gi nga wax leen koo beddi am na lu ko gën nee naa la démb yow lañ doon waxtaane démb nga may wax ay beddi euh, Amady Badiane waale sa da koo jaaxal nee na day toog ba mu yàgg naan Waly est-ce la man damay toog fu ñuy waxtaane di wax Amady Badiane ma toog di ko dégg mu xam ñi koy waxtaane ay nit ñi ñëw ci moom di ko wax maanaam yéen li xaw daan ngeen xamul li xew lépp lépp xamoo leen ko dafa garaaw li xew moo garaaw barki sa ëmat neen day toog naan waali mi est-ce que nit la man ci dëgg laay dox gis ngeen problème mu njàpp bi wax naa leen ko naa leen nee naa leen njàpp dañ doon bëbboo Amady Badiane pour suruxal ko Amady di ngeen leen doon nante boo gisee mu naan sama doom la maa ko yooyu yëpp dara da koy wax noonu pour seen kanamu senegale yi mais xam na liñ ko naral xanaa yi déglu leen vocal yi wala yéen man ma mayaat leen ko pour dernière fois ma doog a jàll ci beneen cas parce que dafa des ci ñi ma waxal ñi ma war a waxal danoo des Amady nee na dina dem Amérique dégg ko maanaam day kitaram daan dem Amérique pour nekk ci ay business am tuuti ñëwaat bu ñëwee dina kat set day ñoom ñëpp xanaa déggu leen olof mais dootul dema te quoi bu focal yi génnee loolu la tax bëgguma di tàng yéen a may merloo mais fii waruma fa woon egg di ngeen a waroon a bàyyi rek ma toog fii nii waruma fa woon a egg waruma woon a egg fii quoi nan déglu. ma dee may woo sama waaj allo Badiane. dama demee lépp jàmm. allo waaw. appel bee passé dafa am lu ma la waxoon xam nga yow lii lépp xalaatoo woon ko. waaw déggoo xam naa lépp. léegi nag baal ma wax la benn affaire maanaam yow ci say tànk la nekk mënut a sotti ñuy jëm lii pour kii la yow loolu lépp xamoo ko. waaw waaw waaw xam naa lépp. yow yow fi wér nga. waaw kon baax na xam naa sax ba pare xamuñu ne a dem su ma bi mooy xam nga la mooy problème bi ëmb di maanaam yow bu xam nga bu ñu tegee ñàpp nit ñi di ko jox xaalis nga ne tekk ñu ne da ngaa siisu. daal mm-hmm. lay dugal jaxase la Sénégalais yi mais yow naan nga loolu. Ah. gën leen a muus ne leen sama doom la. Ah. maay papaam kontaan naa ci loolu. waaw dégg ah kon yow comprendre nga. kontaan naa ci loolu foog nga may foog nga may foog ngay jëli samay sama sama sama parce que ma liggéey li may liggéey ba mu bu essai bi ñu ma dóor ci ma nangu loolu. dëgg la mais li ni jëm lépp rek muy jàmm. parce que man dama toog xam lu bëri. xam naa xam xam naa loo xamul yow. kon jeex na. nee naa leen man foofu yow rek yaa fay. nee naa leen man foofu yow rek yaa fay. li ni manigaase di ko def nii dama koo xam bu baax te yow doo dof <laughs> danoo yaakaar nit ñi danoo dof man kenn dofu fi danoo xamul rek. Ah, du ma dof du ma seer dama bëgg dëgg authentiquement nee naa la. <laughs> dañuy def dof mais li ñu bëgg li ñu bëgg a def ci kaw Sénégalais yi. waaw. Badiane sa réseau bi dara baaxu ci sa réseau bi. yaa waaw non xam naa mais dama ne. waaw li ñu def ci kaw Sénégal laa dul nangu li a dóor ci kaw Sénégal yi. pour mhm. ma perte man. Mhm. Mhm. déggu ma de. non loolu la kay yoon ci ci anam yu waaw noonu la demee bu ma demee wu ci bu ma bu ma demee wu moom ci gis nga la. noonu gis nga gis nga lii waxoon naa la ko avant tey xamoo woon lu bëri. loolu lay comprendre na. seen liggéey la ñoom ñooy def lii léegi nag vidéo bi dama cee wax dëgg dëgg sa waay la neex lépp lu nu def mu xam ne lépp moom la neex. moom la neex mos. moom la neex mu yàgg dañ na xam nga li fiy dëgg dañ koy wax man de damay wax dëgg rek. waaw dama ne man sooy wax dëgg samay naw ji dootu ma dootu ma noppi dootu ma wax dara en tout cas xam naa ne dañu foog ne maa la koy wax la wax loo ko. wax loo ma ko te ku la ci tudd ma dëgg ndeyam. waaw ku mën a doon. waaw ndey mi la ji bu gën a lox sama xam moom. waaw sama gàtt naw ji. am sax may daal li du ma maa la wax lii. merci beaucoup loolu laa bëgg. dinaa dégg seen benn par benn. yow yow yow rek yaa ma ñor du keneen maanaam yow wax ji may wax nii yëpp yow yaa tax sax ma ciy gën a basé wu mais xam nga yow dama la dul moo tax du ma def loolu. du ma dem du ma du du ma toog. jeex na après lii nag dinaa voyage ba après lii dinaa voyage sama dem defi samay business sama yëfi bopp ñëw. Ah, jërëjëf déggoo ma de. damay tax xoolal dama bougé fii laay taxaw di sant di kat seen lay. non non noppi leen nag dañuy dañuy jaay affaire wëyu naan dañuy ah. ci àll ba indi ko biir Ramadan ni nga sonne biir Ramadan amuñu. jeex na na dafa am yoo xamante ni nag bu ma fa yeggee moom damay toj kaas yi foofu baaxul ndax denc naa yeneen yoo xam ne ni teguma ko yeneen yoo xam ne teguma ko nag léegi nag damay jàll feneen damay pause fii jàll feneen maanaam euh, xam ngeen lan moo tax may def lii xam nga lan moo tax may def lii xam ngeen lan moo tax maanaam ñi naan waaw Adamo dafa giseeg ak waa Matar Diop suba teel léegi dafa sensé Matar da koo jënd Matar koy waxloo loo Matar tax muy def lii Pape Diouf a tax muy def lii déedéet ni daan ni nu mel moo tax may wax lii du Pape juuf du Matar du kenn ni ram daan mel ak coow li nekk ci biir ak li ni mën a gaasa ci biir te duñ ko wane ci kaw moom ngeen xamul man bu ma defee vidéo addunaay kontaan amul kuy takk ci waali te dooma woone ma yal na la yàlla defal jàmm aadama guddal fan aadama waxal nga nit waxal nga yàlla yàlla nga gudd fan boos day néegri parce que duñ mën a wax mal placé léegi nag nit ñooñu noonu ñoom ñooy wiire dem ci ginnaaw waali nan ko aadama li wax wuru koo wax Pawlish Mbaye li mu wax Pawlish lu mu am na da ngeen a xamul li xew maanaam Wally ci kaw seen bi day comporté woo neneen image yi day comporté woo neneen mais bandi cerveau la lépp lu nit di def xam na ko ci suuf la koy def ci kaw du dara victime la wala boog yëgul li xew loolu laa bëgg ngeen xam da ngeen a comprendre rul li xew Ramdaan ngeen xamul komp leen dara da ngeen a xamul yéen léegi nag léegi nag yéen ñi naan Adamo dina saaga waale ci saaga ndeyam la jëm yàlla tere waale duma ko mës a saaga defu ma dara dama ko bëgg te yàlla tax mais dama koy wax mu delloo si waat xool ay niti dembam na xoolaat ay nitam na xoolaat ñi ko bëgg na xool ñi ko bañ na xool ñi ko bëgg xool ñi ko bañ parce que benn Wally Seck ba noo demee Paris disque d'or bi ñu doon jëli Paris xam nga kan kan ñoo bokk néeg Cheikh Anta Ndiaye Metshop euh, euh, kii Paco Maodo Mbaye ñoom ñett ñoom ñoo bokk néeg Baye Sall ñu jëlal ko hôtel pourquoi Paco ma Maodo Ndiaye Maodo Mbaye ba ko waale xamee yàgg na Cheikh Anta Ndiaye moo koy tëggal Metshop xaritam la ñooñu wur ñoo sax bokk benn néeg Baye Sall di dem tëdd feneen pour lan Baye Sall tëdd feneen pour lan ku koy fay yan mois la Baye Sall mën def moom Paris di fa toog disque d'or bi ba mu paree la ñëpp ñibbi Paco ñibbi na euh, euh, Salimata Gueye dem na Cheikh Anta Ndiaye dem na moom mu des fa def na fa un mois indi Mara maa dem ba mujj xool situation bi xool ma yërëm Baye Sall barke Serigne Babacar si ma yërëm Baye Sall comme fay gi demeewul noonu ma ne ko am naa benn hôtel bu nekk Reymel Maison maa ko ko yónnee man bii bii hôtel xaaral ma dugg ci message yi ngeen gis ko comme que da ngeen a bëgg lu leer. Baye Zal Baye Zal xaaral ma tourné caméra bi dindi photo yi non doyul Sénégalais daa bëgg lu leer moo tax doy Sénégalais daa bëgg lu leer ci preuve lay dox moo tax lii lan la bii bii hôtel Raymal maison quatre gares maa ko yónnee Baye Sall mu ne ma ok merci bay xaaral ma teg benn vocalam de bala ngeen ne saal Baye Sall da ngeen cee gaaw. waaw man ne wax. waaw ngeen wax ne moom Raymal maison xoolal maako ko yónnee bii bii hôtel xool leen bu baax. bii bii hôtel Raymal maison maa ko yónnee maa ko yónnee hôtel bi mu ne ma ok merci. mu ne ma maa ngi ñëw maa ko ko yónnee man hôtel bi rey mel meso damaa bëgg mu leer waaw kay léegi ma dolluwaat daa ngi wax a yéen xaaral ma delluwaat ma tourné waat caméra bi hôtel bi maa ko yónnee Baye Sall ne ko Baye Sall kat gis naa ne yéen a ngi sensibiliser te sensibiliser dafa seer comme que hôtel bii ma nekk hôtel bii promotion la cinquante euros la ñëwal fii ma yónnee ko ko mu ñëw ba mu ñëwee ñam hôtel bi hôtel bu neex mu jëli Mara andi Mara mu ñëw Sali sax jaaroon na fa Sali jaar na fa sob jaar na fa mais ñoon jur tuddu ñu mu jëli Mara mu ñëw Khalifa sama benn xarit mu indi ko fa Isa bi nekk itali mu indi ko fa ak benn gelam bu tudd Jaabira Espagne mu indi ko fa léegi nag waali dem Amérique waali dem Amérique comme que ki nekk comme que sénégalais bi nekk ci réception bi Pape la dafa baax Pape daa baax léegi mu daan patron bi dafa déggoog Pape léegi patron bi ba Wally demee Amérique da Baye Sall li mu joroon jot ci ay néeg ak ñi mu engagé woon valeur bi mi ngi nekkoon ci xoolal valeur bi mu ngi toll ci valeur bi gars yi tàmpate leen écran bi valeur bi mi ngi toll ci sept cent quatre-vingt-dix non huit cent quatre-vingt-dix euros moom la Baye Sall waroon na fay déglu leen moom bu baax Wally dem Amérique ñëw ne Baye Sall mu xaar ko mercredi lay ñëw Wally dem mercredi borom hôtel bi euh, euh, Baye Sall ne day gisanteeg Wally daal di génn ci guddi gi dem gisanteeg Wally dikk borom hôtel bi ne dafa soxla xaalisam daal di jël xoolal daal di di jël ay valisu Baye Sall ak ay valisu ak ay valisu euh, maaraak ñoom ñëpp daal day téye valis yi buñ ko fayul du lu génn wala du lu jot seeni valis Baye Sall fay xaaj bi dasa xaaj xam ngeen ma kan moo fay xaalis boobu noonu Matar Diop suba teel Matar Diop suba teel barki Serigne Babacar si moo yónnee xaalis pap Sénégalais bi fayal Baye pour mu jot ko loolu ba tey xamu leen ko. xaaral ma ñëw ma ne ko may leen ma ma ñëw. déglu waaw papa yaa ngi si jàmm. Ah, maa ngi danaa fay xaalis bi. allo. Ah. ma ne Matar Diop fay xaalis bi. waaw ah, kay gis nga ko léegi nag da ngay koy message nga ne ko xaalis bi bàyyi ko Matar Diop suba teel la ko. fay na ma xaalis boo paree xoolal nga pare ci nga pare ci moom nga boole ko ndax Baye Sall du ci baax bu leen sax di déglu ay message ak wala déglu lay wax. yaa ngi may dégg. soo paree nga pare ci ñoom bu leen sax di dégloo ko am lu leen di wax yow boo paree boo ko waxee li koy wax boole kenn day nga pare ci moom. su ma ko message ba pare kay jeex na merci beaucoup jërëjëf ba ci kanam. supprimer jeex na kii moom mooy pap moom moo gérer Rey Malmaison mooy liggéey ci biir moom moo jël kartam fay ko ci Baye Sall ne ko bu demee a Sénégal dina ko delloo xaalisam muy woo Baye baysal Baye ko ma woo Salimata Gueye Salimata Gueye ne dina woo Baye ba tey nii xam nga kan moo fay xaalis bi Matar Diop suba teel man Adama maa ko wax Matar Diop suba teel mi nan dafa bon baaxul bëggul waali doomu xaram la day defante moom moo fay sàmbur yi nga xamante si nii moom la fa bàyyi sal fa bàyyi te ko te waa ji mi ngi senegal war a takk jabar audio yi Baye yaa ngi nii maa ngi ñëw fàttewu ma ne naa ko rek rek la koy may boobu ba léegi xaaral ma tegal leen audio yi Baye bëgg muy leer Voilà. Baye Sall lii lay may waa ji déglu leen. Pape noo def yaa ngi ci jàmm. Pape noo def déglu rek déglu déglu leen bu baax. Pape noo def yaa ngi ci jàmm. excuse-moi dama doon nelaw de fan yii yëpp maa ngi leen dama lay rappeler fàttewu ma ko dinaa ko gérer nii dinaa ko gérer incha allah bi jeex naa ko lii la ko doon wax chaque semaine bu ñëw mu waxaat ko beneen semaine semaine bu ñëw mu waxaat ko beneen semaine semaine bu ñëw waxaat ko beneen semaine. waa ji di ma woo di ma kalaameeg moom barki Serigne Babacar si naan ma dafa war a takk jabar Matar Diop suba teel a ko fay xaalis bi. lii la ko Baye Sall di wax semaine bu ñëw mu ne ko beneen semaine vocalam yaa ngi nii man damaa bëgg lu leer ma tegalaat leen beneen bi ngeen dégg ko waaw déglu leen. mon nekk. yaa mbiri fàttewuma la rek lii rek lii la ko doon wax chaque jour mu wax ko ko chaque jour Matar Diop suba teel fay na Pape xaalisam man na sëkk pour ngeen xam ko noonu sénégalais yi dama bëgg ngeen xam bàyyi leen di wax naan ay aadamoo Matar Diop la àndal Sidi Diop la àndal Pape Diouf la àndal bañ na waali déedéet kenn bañul waali waali dafa laaj nga taxaw nga wax ko ay dëgg. Amady bajaan mi ni bañ a toogal ak Amady bajaan mi nga xam ne yëgagul yëgatul dara Amady non non non non yéen yéen yéen yëgu leen sax li xew lépp looloo ma metti looloo ma metti na xool ay nitam xool ay niti dembam xool ñim doon àndal loolu lañ bëgg mais naan ay waay nang déedéet ñun waale rek la ñu bëgg waale rek la nu topp mais bu nekkul ci yoon dañ naan ko nekkoo ci yoon am na ñoo xam ne ñemewuñ ko ndax ku ci génn wax Wally Ballago Seck dara dootoo lekkati dootoo naan ku ci génn ne Wally tooy na wala wow na dootoo lekkati dootoo naan barki sëriñ Babacar si ñun nag dañuy lekk di naan yàlla ñuy dimbali ñi ngi tedd soxlawul dara ñi ngi lekk ñi ngi naan ba Baye saal moom lu mu daan soxla man la koy laaj jox ma cent cinquante ma jox ko jox ma dix euros ma jox la jox ma trente ma jox la te bari na ciy morom namuñu dara ñun ñun bu nu waree wax dëgg dañuy génn wax ko. ci dëgg rek la ñuy dox kese yow ay baay Sall joteeg Matar Diop suba teel di la utilise waal yi di la teg ci dëgg bi di la xeexee di faj seen mer nday Ndiaye bànn yaa mu gàddu indi njàpp mu gàddu indi Mara mu gàddu indi saagakat yi la doon saaga ñoom wës mu mu mu gàddu indi boy koloban bi mu gàddu indi 6000 problème nga xam ne wax na la fi lu ne mu gàddu indi pour lan. yow nga accepté loolu nangu ko bëgg loolu nga nangu ko d'accord ko mais waali nan bàyyi di wax naan waali du ci dara déedéet waali dara la ci waali lu ma bëggul ram daan du am waali bu mënee indi ab aadama danaan aadama neexuma du fi dugg wala mu ne aadama mii du ko def déedéet lu mu bëgg ram daan loolu mooy am kon bu leen ne waali du ci dara waali deful dara loolu ay bañ a dégg waali du ci dara waali deful dara waali xamul dara waali yëgul dara te waali moo gën a xam sax seen yaay gën a xam seen papa lépp lu xew xam na ko bandi cerveau la laa leen wax moo koy nangu nan bàyyi naan ci dara yëgul dara xam na lépp li ma bëgg mu leer ci yéen nag mooy aw maag problème waali bàllaago sekk yal na yàlla guddal fanam waali nit ku baax la damay leeral di wax yéen ñi naan waaw waale la la engagé waale lay xeexal déedéet bàyyi leen bu ñuy waxtaan ngeen di jël affaire yi di ko détourné ci waale déedéet ñun ñu ngi wax man ak Pawlish li ñuy wax mooy ñu bees ñu ñëw ak ñi rax daan di yàq daan ak a jaxase ñooñu lañu joteel ñoom lañ amal affaire ñoom la ñuy waxal waxuñu ak Waly Seck Waly nag benn paar bi dañ ko ci laal tuuti parce que moo moo moom moo nangu loolu mais bàyyi leen di jaxase ay nit ak di saytaane ñun li ñuy wax xam nañ ko xam nañ li ñuy wax du dëgg waaw ah, kay léegi nag dafa am yoo xam ne nii boo ko tegee kooku mën na doon mën na doon diffamation bu ëpp lenn nag laay xaar moom lenn mooy ñiy nekk ci xanaa xanaa kaña yi génn maanaam si dax yeeg bët bëtër yi nekk ci internet bi di ma tontu dama bëgg ngeen daggal ma lii ngeen partagel ma ko lii may wax nii képp ku ma ciy tontu day fekk maanaam yow jege woo waali da nga nekk koo xamante si nii ab kaña nga wala nga nekk fan si géttu bay wala nga nekk ku tekkiwul saram ndayam wala ku waale xamul mais képp ku waale xam nga nekk ramdaan jege waale di ànd ak waale di tëgg nekk ci concert bi wala ngay ànd ak moom di dem hôtel di ñëw doo tontu aadama ndax xam nga li may wax te ku ci génn république wax ma loo xam ne waroo ma ko wax ma dëgg sa ndey ci ay preuve ak ay audio kooku kay damaa bëgg ngeen enregistré ko teg loolu kay ma leen ko wax yu leer nañ nag du ma waxantu lu leer nañ lii dama ko wax pour mu leer ay kaña lay doon ay si ndax wala ñu ci bokkul wala ñuy weesu public bi wala ñekk en dehors mais du doon ci biir Ramadan du am waaw kay léegi ma ñëw non laay la chef sax mi may apprécier quoi vidéo bu ma def ma apprécier ko laay la chef danoo sonn maa xàllaa ana maa ngi lire sa laay la chef ndeysaan day apprécier rek danoo sonn ñoom ma danoo mun mënta wax ak waale ndeysaan ñoom man man bu ma waxee vidéo la ni d'accord mais su kenn waxul duñ wax xaaral ma déglu ko laay la chef ndeysaan yàllaa mën a seede de <laughs> ma ne ko yàllaa mën a seede de laay lu mu wax ma déglu loolu cey laay la chef wax. booy barke Seydina Mohamed déggoo ma de ñi nga waxal ñoo bëri dafa garaaw de ñu kontaan dañoo bëri trop macha allah bu ñu bëri dañ ko dagaat envoyé ma ko ñu bëri dañ ko dagaat noonu envoyé ma ko. billahi ñëpp a kontaan. parce que benn situation si ah seen people 221 xaw ma moo ko dugal ndax ñu ko dagaat ñu bëri foofu lañ ko jëlee envoyé ma ko. non li nga wax dafa garaaw trop dafa garaaw trop barke Cheikh Khadim da ngaa laal góom bi ko yow. Mhm. loolu laa bëgg. non booy say xeetu dëgg diis na trop. waaw say xeetu dëgg diis na trop. dëgg rek trop gis naa ay ñoo xam ne moom. duñ duñ la woo wala la ñemee. kenn du ma woo déglu déglu leen Layla Chef li mu wax xam na li may wax amul ku may woo Layla Chef miy ànd ak Wally guddeeg bëccëg dégg ngeen ko nii mooy audio nii amul kenn ku may woo kenn déglu leen bu baax. non booy say xeetu dëgg diis na trop say xeetu dëgg diis na trop trop. non gis naa ay ñoo xam ne moom duñ duñ la ñemee woo wala duñ la ñemee envoyé message mais ñuy toog fi di lëmbal xam naa ay classe yu si jéngee concert xam naa ne ah, ay ay naa fi ay ñoo xam ne booy non mais àdduna dafa garaaw de booy àdduna dafa garaaw àdduna dafa garaaw loolu yàlla yàlla mën na mun na mën na loolu yàlla mën na mën na changer carte bi barke Seydina ko parce que neexul si xol de neexul si xol de barke Seydina ko affaire bi ñu ko jël ba